ليليا عجا وانزلا بالتواون تواوان فيها اليمن للمطيامن خليل يا عيا وانزلا بالتواوان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأزكى الصلاة الله والتسليم على الحبيب الذي بشر بتسليم وآله وصحبه الغراء والتابعين ثم الأولياء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi fi daje ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di jiital ci nuyoo bi imaam yi yàlla jiital ci sunu kanam te ka nekk ci bopp di imaam alxaaji malik ñang ak mboolem imaam yi topp ci ginnaawam yépp di leen ñaanal yàlla sunu boroom defal leen tawfiix ba lépp lu ñu jiite yal na ko yàlla nangu te ful ko ñaan yàlla dàqal leen seytaane ak bakken ba yàlla bu ñu gis seen bopp ñu nit yàlla bu ñu gis sunu bopp ci daraja yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu mag ñi ziyaar leen jiital ci bàyyi alxaaji mbay moroon ñaanal mag ñi nekk ci kër yi te wéradi yàlla na sunu borom saafara leen te delluwaat leen ci mbooloo mi ñi koy sooxaale it yal na yàlla saafara leen ñi mu tëral it yal na yàlla yëkkati leen ci barke yonent bi ñaan nawet bi yàlla àggale ko ak jàmm yàlla wàcc ndoxu barke te ànd ak xéewal bu yaatu ñaan réew mi yàlla doole fi jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa te def ko ci àddina bi ñaanal mbokk yi génn àddina yal na yàlla jéggal leen te yërëm leen fa tabaarakallahu léegi rek ñu ngi ñuy tàgge doomu paayaale jaxate ku ñuy wax basiru jaxate te ñu gën ko miin ci pëti moom it ginnaaw bu ñu julee juma lañu koy jébbal boromam fa tabaarakallaahu am na ay mbokk ci dëkkandoo yi soxna su dëkk njaayeen moom it barki démb la génn àddina ak ku ñuy wax Ousmane Cissé di doomu Mor Cissé ancien policier dëkk ci daaru salaam ñoom ñëpp ñu ngi ñaan yàlla mu jéggal leen te yërëm leen ak fu jullit faatu ci àddina am na sunu benn yaay bu ñuy wax soxna Fat Sey Mbeng moom it génn àddina bërki démb ci Tiwaawan tey jii lañu koy ñaanal yal na yàlla jéggal leen ñoom ñëpp ci barkent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina tabaarakallahu ustaz Ahmad Ba yal na yàlla dolli yees yërmandeem ndax kenn la woon ci lislaam bi nekkoon ndaw waaye doon jàmbaar fa tabaarakallaahu ci xam-xam di ko tasaare ci àddina bi ñu mel noonu nag bu ñu leen ñàkkee fa tabaarakallaahu li ñu wax rek mawtul aalim mawtal aalim dañu wax ni boo ñàkkee boroom xam-xam mel ni ñàkk nga monde bi yëpp kon nag yal na yàlla jéggal leen te yërëm leen ñu dellu siwaat rek agale sunu waxtan ci dekkendo ndax dekkendo lu mata bàyyi xel la euh ñun julit Sénégal dañuy compter rek ci julli di compter ci wor fa tabarakallah ak aj màkka waye amna yu sew yo xamne buñu ko bayyi wul xel man na mabbu sunu jëf yo yépp fa tabarakallah te yenent bi sallallahu alayhi wasallam دفني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره تلاي تخنغ غم يالا من كان يؤمن لوح بالله كو غم يالا تال ايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ايمان بودون لوني جي تي خول تبارك الله meññeef ya cay feeñe la koy arrosé ba mu mën a meññ mooy jëf yi waaw ndax boo toppee xadis bi daf ni wa samaraatu at taqwa waaye la koy roose nag ba mu mën a am meññeef boobu taqwallahi boobu mooy jëf yi ñu sellal ko te rafetal ko waaw mooy muxsinul amali ila jaarihi nga rafetal say jëf jëme ko ci say dëkkandoo damay wax ni Sénégal euh, cohabitation bi ñu dëkkee bu yërmande yàlla jiituwul ci ñun ñun ñëpp dëkkandoo mën nañu yóbbu safara parce que bariwul ñu respecté norme ak dëkkandoo ndax ku ci nekk ku ci mel ni man loola neex ngay def boo raxasee say ndab sax walla nga fóot say yére sax jël ndox mi tuur ko ci mbedd mi bu ñu waxee nga ni mbedd mi mbedd buur la te xaqu taarix dafa am waaw yenent bi sallallahu nee na donte aw xeer nga romb ci mbedd mi sax jëlal xeer wi nga déplacé ko parce que mën na gaañ ku ko gisul te loolu yiw la kon nañu bàyyi wat xel dëkkandoo ñu rafetal ko waaw bi gis nga mu ni waman aza jaaruhu xarama allahu alayhi aljanna maanaam kuy dëkke lor sa dëkkandoo sa jëmm xaraam na àjjana moo tax ma ni bu ñu yàlla jiitalul yërmande boo moytul bu ñu yàlla attee ci dëkkandoo rek du baax ci ñun mu delluwaat wax sallallahu alayhi wa sallam man aza jaarahu faqat azani ku lor sa dëkkandoo man nga lor wa man azani te man ku ma lor faqat azallahu yàlla nga lor mu ni képp ku lor yàlla it na la wóor ni fa mawaahu naar safara ya gën a metti ca nga jëm yal nañu ci yàlla musal lor sa dëkkandoo ci wax lor sa dëkkandoo ci jëf xam nga yenent bi buy sàmm ak dëkkandoo ba woo aba zarin ni ko yow aba booy toggati ñam ci sa kër te ñam li bu ñu ubbee ci nuy xet bi génn dugg ci kër dëkkandoo yi faksir ma aha na nga yokk ñuluk bi ngir mën leen a yàkkal ci ñeex mi loolu jàngale la jàngale la bokk na ci lor ci dëkkandoo yi même soo demee bay tabax war nga dugg ci dëkkandoo yi la wër nga leen ah man kat damay yëkkati sama ëttëru tabax te ngelawu yàlla birisu yàlla biy ñëw ci yow mën naa la koo xañ ma lay ñaan ndax di ma jéggal loolu parce que parce que Sénégal lépp dañ koo bàyyi laisser ale Sénégal maanaam environnement bu sain sax amu fi lu waaye neex def ba ci canalisation yi ñu def nga xam ni su ndoxu taw ñëwee sax mën na ci da ngay gis koo xam ni day jël mbalitam sotti ci yaa ngi lor sa dëkkandooy yi wala nga gis koo xam ne buy taw mu profité ci taw bi génne foosam tijji foosam ndoxu foos sa foosam di lor ay ay ay mbokk dëkkandoo loolu danga koy gis te ku ci nekk dangay jàpp ni li la li loolu sa yow daal daf laa neex danga koy def mais dara doo la ci fekk te loolu lu jar a bàyyi xel la waaw war raayan xuququl jaari walaw kaana kaafiran yenent bi nee na na nga na nga sàmm ak dëkkandoo donte sa dëkkandoo bokku leen diine akam na nga ko sàmm moytu ay lor yu jóge ci yow wala muy jóge sa njaboot yooyu lu lu jar a bàyyi xel la mbokk yi ñi ngi nettali seyduna asan radiallahu anhu di doom ci faatumatu bintu rasul dafa dëkk ak benn yahóod yahóod bi bu bu bu jabaram balee këram da koy ñëw sotti ci buntu kër seyduna asan wala mu jëli ko ci miiram mu dem ba def fa ab sën xet gi nag di leen bëgg rey ñu ni bés boroom kër gi jëkkëru yëhoot bu jigéen bi ñëw ñëw dugg kër Assane di nuyoo gis mbalit mi ak xet bi mu ne ko waaw loolu lii nan la mën a nekkee sa mbalit kay boo ko da loo koy boo ko dajalee fi di nga ñu loraale parce que xet gi dina dugg ba suñu kër yi mënoo koo ànd nga yóbbu ko ci sën ba fa ñuy tuur mbalit mu ne ko déedéet sa soxna mooy bale këram di ko sotti sama kër mu ne ko lu tax naqarlu loolu lu tax wax si woo ko mu ne ko sama maam sallallahu alayhi wa moo jàngale ni bu la sa dëkkandoo di lor ne na ko teral loolu mooy ikraamul jaari yi teraange bi mooy nga muñ ko mu ne ko na ko muñ waye ci la yahud bi jaare ni ko yéen seen diine ji moy diine bi gën ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah tabbi ci lislaam ndax muhsinul jari moy rafetu dëkkaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy bayyi lo xel ba tey dëkkandoo mu ni laa ba'sa lil mu'min an yasku xaalihi li aqihi l mu'min nee na ku sa dëkkandoo ñëw am tolof-tolof ñëw wax la ko jógal sol sa dàll bu dee lu jëm ci wàllu yoon la jógal sol sa dàll bu dee lu jëm ci wàllu jafe-jafe la jógal sol sa dàll bu dee daf laa tawat awma lu ma dunde xaajal sa njël nga jox ko nga bañ ko seetaan yooyu yëpp dañ ciy war a bàyyi xel ndax ma zaala yenent bi nee na mësul dañ yati jibrilu jibril di ñëw di ma dénk ci wàllu dëkkandoo xatta zannantu annahu sa yuwaarisuhu ba ma njortu ni balay alxuraan di mat yàlla dina wàcce aaya boo xam ni dina ko dugal ci miraas bu nit génnee àddina bu ñuy séddale alal jam fa bàyyi nañ ci boole dëkkandoo kon dëkkandoo dafa am àq dafa am àq te àq yooyu euh, lu mu néew néew rek nit war na ko mën a daw war na ko mën a moytu moo tax cohabitation bi mag ñi daan dëkkee nga xam ni dañuy demalante di daje ci jàkk yi bu ñu jullee ku nekk jox sa moroom loxo ni ko baal ma àq musaafaat yooyu yooyu lu am solo la moo tax yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk dégg diine am na ñoo xam ni dañuy jàpp ni bu ñu julee ni asalaamaaleykum rek dañu war a génn jàkka ji dem duñ jox kenn loxo pour ñoom loolu sax dafa xaram da ngay dégg ñaan xaram xaram xaram mais loolu pédagogie la boo xam ni man mii su ma dëkkeek seexu njabootu sama njaboot ak njabootam di lorante te xëy na tooguñu ci dëkk bi dañuy liggéey wala weekend ba weekend la ñëw dérive yooyu di am te duñu ko yëg bu ñu dajee ci jàkka ji bu ñu julli aleykum ku nekk jël sa loxo nuyu la saafonte ak yow baal maaq nga ne ko baal naa la ak yooyu noonu mag yi naan def ak daan daje ci xew yi ci ngénte yi ci dëcc yi fa tabaarakallahu di demlante ak di jokkalante daan na tax mosoo dégg benn coow ci mag ñi mais léegi nag génération bopp sa bopp la ak génération yëg sa bopp ak génération ku ñàpp ku nekk defe ni yow am-am wala ndomba tànk mooy mooy tekki dara fekk loolu du dara lu lay dab la rek te boo deewoon léegi say dëkkandoo ñoo lay njëkk a tiim lu mat a bàyyi xel la moo tax bés man dama am gàcce dama dama xëy sama kër. fii ma dëkk ku ne xam nañu ñu ñu dëkkal mooy badzi badzi yi ñu baax te yiw waaw yal na yàlla guddal seen fan te may leen jàmm soxna si ñëw ni ma daal yow sa xale yi bu ñu yeewoo ci di xëdd dañuy def biir yoo xam dafa mel ni sunu kër gi lañ koy defee waaw keroog ma dajale xale yi ma xas leen man leen yéen amuleen leen sax loon di rus leen ñun ñooy jullit ñoo war a wane un bon exemple ngeen dëkk ak seen mbokk chrétien di ko lor ba mu koy ba mu koy naqarlu loolu dafa ñaaw te loolu lu mat a bàyyi xel la waaw mat a bàyyi xel la kon mbokk yi mag ñi daal dañu woon cohabitation sociale waaye nag boole ci muñalante jéggale ak jéllale ndax ku yor njaboot muccoo nit mën nga rawale sa bopp li may wax keroog ajjuma ma ni koñ bii ñu dëkk mag ñi ko sosoon ñépp ay mag ñu baax lañu waaw dund nañ fi ba dem wuy seen borom kenn mësul dégg ñu wax lu ñaaw wala ñu def lu ñaaw wala sax ñuy teg seen tànk police waaw te léegi koo sa bët bi tàq na suuf rek mu ne xaaral ma dem police bind convocation te yooyu réglé wul affaire yi il faut ñu koy bàyyi xel ak yu yëf yi critique critique imaam sax demal ci imaam demal ci imaam waaw sëy daan am jafe-jafe ñu nañ dem ci imaam dëkkandoo am jafe-jafe ñu nañ dem ci imaam imaam sol dàllam woo ñu mu wóolu ci ay mag neen kaa leen dem doxi lii mais léegi koo wax rek mu ni police police police police police te yooyu réglé wul affaire yi bu ko defee tamit euh, yaatu dënn boobu dafa war a nekk ci ñépp waaye ñu yaraat xale yi ñu moytu waaw ñu moytu lu bari parce que tooñ baaxul waaw te ndaw bu dëkkee tooñ mag yi dañ wax sax du gudd fan ak koo mën a doon nag tooñ baaxul ndax yenent bi wax na ni ñaan gi yàlla dul delloo ñaanu aju tooñ gis nga nga tooñ nit ak a garaaw tooñ kenn mënu ko wutal gàllaaj tooñ kenn mënu ko wutal gàllaaj ak ku mën a doon nag bu ko tooñ su ko defee yooyu ñu ci yee xale yi di ci yee ndaw ñi ñu ciy bàyyi xel ndax damay wax ni léegi mag ñi bu njëkkoon mag ñi bala ñoo tëdd dañuy tëral xale yi waaye léegi xale yi ñooy tëral mag ñi te duñu tëdd waaw mën nañoo toj réew mi balaa fajara jot te doo ci xam dara lu ñu la wax ne la sa dooma ko def bu ko miim parce xale yi am nañu fit bi te sañ nañu Abdourahman Abdourahman al Aqdari dafa wax ni jamono dixième siècle bu ñu fa tolloo nee na ñetti dérive dinañ xew ci jamono benn bi mooy al jëhlu réer beneen bi mooy al fitna beneen bi mooy al fasaad mooy yàqu-yàqu mu ni réer ak fitna

te dafa tasaaroo nag ci àddina bi kon nag yàlla nañu yàlla defal tawfiix yàlla nañu yàlla dolli sutura yàlla nañu yàlla may jàmm suñuy dëkkaale waaye nañuy bàyyi wante xel fa tabaarakallaahu euh, su ko defee yàlla mën na oyofal lépp ci barkent bi sallallahu alayhi te yàlla na fay ñëpp fa tabaarakallaahu euh, am nañu tamit gan goo xam ni dafa ñëw jullisu ak ñun juma ñu koy wax oustaz Cheikh Ahmad Tidiane Lo di njaboot sunu maam Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu ñu ngi koy dalal di ko wax wa sahlan wa marhaban bikum fa tabarakallahu ngeen baal ñu àq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh خليل يا عيا وانزلا